maa ngi tudd ay dara man maay président troupe royukaay tey li ñu fi taxa taxaw mooy dañoo bëgg euh, indi ay leeral ci mbirum Diop dëgg la Diop Fall dafa feebar feebar na également ba jaaxal ñu waaye nag yàlla mi nga xam ne ni mooy tege nattu ah ñun am nañu yaakaar que ni incha allahu rabbi dina ko génnee ci tolof tolof boobu léegi nag ñu bëggoon attirer attention wu nit ñi parce am avons ñoo gel Nous ni dañoo jël bu ko def fonds de commerce ñi ngi wër di laaj ay ndimbal partout Nous Fall wul kenn ñun def nañu ay démarches ay nit ay bonne volonté ñoo xamné ni baax nañu mënu ñu leena lim ñi ngi di def le tout pour que des Fall taxawaat fi mu des dem nañu def nañu ay démarches gis nañu ministre de la culture gis nañu ministre de la santé euh, dem nañu ba fondation. Marème Faye Sall ñooñu ñëpp en tout cas ci benn jour bi ñu leen gisee def nañu réaction bon ñu ngi dégg nag ay information comme quoi que ni dañ ko jël dañoo def ci moom prise en charge totale tel n'est pas encore le cas loolu euh, nekk gun mais pour le moment li ñu mun a wax mooy def nañu ay jéego yu am solo ci ci ci ci ci suñu xarit boobu di Diop Fall waaw di remercier nag peuple bi nga xam ne ni dañ cee jàpp bu baax di leen di remercier ñi ci ñaan bu baax donc képp ku jóg naa leen Diop Fall moo leen yónni wala la xam leen ni loolu ay naxaate la Diop Fall yónniwul kenn am na ñoo xam ne ni ñi ngi koy doxal képp koo xam ne nii am na loo bëgg a def ci Diop Fall soo ñëwee troupe royukaay n'est-ce pas di nga ko di nga ko jot démb déjà bi ma génnee joxe naa numéro sëram muy numéro Diop Fall di 77 565 35 10 kon nak budul numéro bobu nit mënu len fé fim nek ni nii laaj en attendant benen situation di produire. somme bi nga xamné ni n'ak, mom la Marème Faye def moom mooy na Diop Fall euh, Aristide la daan teg ko clinique Madeleine bàyyi fo caution wu un million. Le ministère de la santé ñom nénañu dinañ ko jël en charge donc lolu lañu ñu lañu yamagun ak ñom kon donc li moy information yi fi jot am di gërëm également ku mel Serigne Mbacke Ndiaye ex ministre ak Mustapha Diop ñi nga xamné ni dox nañu rôle yooyu ak euh, Mbake Djum ñoñu ñoñu jappalé bu ñu mëna a ak ñoñu ci benn bëss biñu leen gisé ci la réaction da nga am di remercier bu baax peuple bi nak ñi nga xamné ni def nañ ci bari na lool kenn mënu leen lim ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sante Je suis là aujourd'hui pour euh, amener des, des des éclaircissements par rapport à la situation que vive notre euh, ami Diop Fall un artiste comédien très connu par les Sénégalais, donc euh, qui a partagé avec eux de beaux moments, je pense bien. Donc euh, si je me présente également ici, c'est pour euh, attirer l'attention donc de tous les Sénégalais par rapport à certaines personnes donc qui sont en train de demander de l'aide, n'est-ce pas, au nom de Diofal. Diofal n'a pas envoyé qui que ce soit pour demander cette aide. Nous avons pris des, entrepris des démarches. Depuis avant-hier, nous sommes actuellement écoutés par euh, la population. Euh, et en plus, nous avons fait des démarches euh, envers les ministres, donc tels que le ministre de la Culture, le ministre de la Santé, la Fondation Marem Faisal. Nous remercions également toute la population sénégalaise qui ont soutenu notre cher ami Diofal. Depuis lors, le peuple n'a ménagé aucun effort, n'est-ce pas, pour que Diofal euh, se remette sur pied. Donc nous, saluons ce geste et nous les remercions. Donc, euh, la fondation de Mme Faisal également, a déplacé Diop euh, de l'hôpital Aristide Le Dantec pour la clinique Madeleine. Donc euh, c'est ça. On entend mm, des informations comme quoi que la fondation Marem Faisal a pris en charge totalement Diofal. Non, tel n'est pas encore le cas. Je pense que nous les avons avertis par le truchement de M. Tafadio et euh, Mbaké Donc, mais ils ont réagi automatiquement. Ils ont fait un geste et euh, au, moment de, opportun, donc nous, nous, reviendrons sur ce plateau donc euh, informer la population de la situation. M. Serine Baké Ndiaye, également ex-ministre, a joué un rôle de pacificateur et de facilitateur donc pour euh, qu'on voit ces autorités. Alors nous sommes là aujourd'hui pour éclaircir cette situation donc, et encore une fois attirer l'attention de la population par rapport à ces personnes donc, qui demandent de l'aide au nom de Jofal, Nous voulons que ceci arrête. Merci beaucoup.